من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Assalaamy TV seen site internet assalaamy point net nuyuwaat nañ leen rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen wax ne dal leen ak jàmm ci seen émission teg ko ci yoon ci deuxième numéro bi tey ji nag ñu am mbégte di ci dalal bay Sangue Fall nekk koo xam ne moom moo jiite mbooleem borom charrette yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci garage bu ndaamaatu ñi nga xam ne ñoo yëpp guy ga kër bay Laat ba ci sump ga tey ji nag ñu fas yéene waxtaan ak moom actualité lu jëm ci doxalinu dawalkatu charrette yi fii ci Touba Mbacké Baye sang ñu ngi leen nuyu baax. bisimilah. bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi ñii leen nuyu kenn ku ne ci sa ak sa sant di siyaare sëriñ Muntaxa Mbakke mu tedd yàlla na fi yàgg lool te i ci barke Seexul Xadiim ñu yàgg ci gannaawam di ko liggéeyal ci dëkk dëkk maam bu tedd bii ba fi bëgg a liggéeyal maam ko ci nam ko bëgg ci barke Seexul euh, amin ci ñaan yooyu muy Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké Bachir mbokk yi kon euh, Baye Sang ñu tàmbalee waxtaan wi ak euh, dawalkatu sareet yi fii ci Touba ñu gis ne organiser ngeen seenub liggéey surtout yéen yi nga xam ne da ngeen a nekkee fii ci ndaamaatu ñu bëggoon a xam liggéey boobu naka ngeen ko organiser ba ci bërëb boobu nga xam ne sareet yi ku ñëw rek doo yàpp dem waaye am na noo xamante ni teg ngeen ko ci yoon ba liggéey bi mën a jaar yoon. kon léegi de ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp ndax yàlla dogal na charé ji ci dëkk bi am naa ci xam-xam bu wér mu ngi mel na nag muy saret bi nga xay si mooy gaaru su ndamaatu jëm Kër Baay Laat ak Touba Lazare ak Sumbuga muy ñetti ligne yàlla dogal na ligne boobu maa ko jiite dellu jiitewaat leneen loo si ci dëkk bi muy dayri bi nga xam si moo lëkkalee chef de garage yu baree baree bari ci dëkk bi man mii maa nekk ci boppu daayira ba. maanaam borom sareet dañoo am ay dañoo am. daayira am nañ daayira mu naweru bunyaan sëñ Sidi Maxtaar moo nu ko tudde woon léegi bu ñu dajalee suñu àddiya garas benn bu ne yaay seet fa sa dooley gaaras tollu nga yëkkati fa nga tollu joxe ko àddiya ñu boole ko siyaare ji ki fi nekkal sëñ Tuubaa noonu lañ daan doxe ab diire gi nag loola mel na ne xaw na taxaw ndax fédération bi yàlla dogal na maa nekkoon ci bopp bi daan coordonné nga xam ne weer bu ne fukki fan ak juróom ya damay def réunion ci benn gaaras dajale chef di gaaras yi waxtaan ci dëkk bi ak gaaras yi ndax ñun li li ëpp ci ñun ay gone lañ jiite ay gone nag ko jiite il faut ngay waxtaan ak ñoom ba ma koy jiite noonu laa ko doon doxee hmm. ba ma demee ba yàlla dogal it ma xool ne xaw naa dis ci man it dama leen a woo ba sama kër tàngale leen kafe delloo leen seen yëf hmm. ñu ne ma nag munoo bàyyee noonu daayira bii nga xam ne si yàlla dogal na gis nan nga taxaw ci taxawaay boo xam si mosu ñoo gis ku ko ci taxaw hmm. dañ lay bàyyi ci bopp bi ba daayira boobu yàlla dogal na maa nekk ci bopp bi waaye dëkk bi ñetti fédération la fi mu mm-hmm. benn bi Ousmane Sall la ko jiite benn bi Pape Thiam benn bi Alaji Thiam Sarr mm-hmm. lëkkale chef de garage yu bari nag. garage saret yi mm-hmm. yàlla dogal na am nañ fa ñaari conseil ci mairie bi benn bi Ousmane la benn bi Alaji Thiam Sarr noonu nekkal ca mairie bi dogal bu wàcc foofa ci ñoom lay wàcc ñu wàcc sikku ci ñoom. ci war a ne ci loolu lañuy dox dëkk bi nag day dëkk bu yomba nekk di bu jafe nekk waxin la nag ci boo tegoo ci dëgg yomb naa nekk lool waaye boo tegul ci dëgg yombuta nekk ndax dëkk bi borom da koo defaral boppam aar ko ñàkk ko ba dara mënu ci dugg képp koo xam ne sii ñëw nga bëgg fee yàqu yaa fi yàq waaye dëkk bi ci yàq dara. xam naa loolu daañu ci ñëwaat sax mais ñu wax rek ci euh, li nga xam ne moom mooy ni ngeen organiser seenub liggéey ci seen garage boobu nga xam ne moo di ndaamaatu nga xam ne lépp teg ngeen ko ci yoon ba sareet bu ci ñëw da nga xam ci kan nga topp wala nooy war a yabee nga xam ne nekkul ne sareet bu nekk rek day ñëw yëpp daal dem yoonam. tey it sareet dafay yabee yëpp euh, jot ngeen leen i identifier a xam ngeen leen ba tey ku ngeen ci jugoon bëggoon a dem këram da nga fa mën dem. waaw loolu lépp day jërëjëf. Hmm. jërëjëf. maa ngi nuyu samay coxeur di leen jaajëfal ndax dana pecc mu liir bu neexee. Hmm. yaay jaay tey ci wagg ya hmm. ndax ñoom ñoo yor carnet ya saret bu xëy si ñoo lay bind. bu demee ba am jafe-jafe nag hmm. ñëw ci man ma lijjanti jafe-jafe boobee. saret bu xëy si dem ca coxeur ba bind ko nga jox ko fanweer. fanweer yooyee ñaar fukk yi. mooy dellusi ci garas bi fukki dërëm yi bii ni ma ànd ak sëñ Cheikh Aliou liggéey ci ndox mi lan ko daan jëlee. Maawa Rahmati Maawa Rahmati hmm. bi yàlla dogalee ñu dem di dem di dem ba sëñ Cheikh nekkatu ca sëriñ mu Moussa jën maa ngi koy duyu di ko siyaar hmm. mu jàmbaar lool àndoon na ma ak moom it ba tey tegguma sama tànk ndax man liggéey sëñ Tuubaa xaw ma ci teggi tànk hmm. am na yoon yoon yu ma ko dugalal waaye nag ba tey damaa wàññikuwaat jaayantewaat nekk fukki dërëm yooyee hmm. su génnee bu weer dee ma yóbbu ko ci Touba ci kanam hmm. borom saret yi saret yi ndaam at yi ñoo koy def yu kër bàyyi laat kenn ku ne daal lool day wund ne borom yi ñoom ñu ngi participer ci doxalinu dëkk bi dëkk bu baax hmm. ne fukki junni yi am na fukki junni yi ne ci sama poche bu ma ko versé tey ah, mooy sama ñaar fukki reçu yu ma versi ci Touba kanam ci Touba ci kanam rus yi ma daan verser ci sëñ Cheikh Aliou bu ma la ko wonoon da ngay kii hmm. booba it borom sari laa ko àndal ndax yoon wii sëñ Cheikh Aliou moo ne moon nan seet yoon woo xam ne si buñ ko defee dana baax hmm. ma ne ko sëñ bi de yoon bi ma xam ne buñ ko defee dana baax nit boo dee dox ànd ak moom hmm. da nga koy réglementé lii dañ koy dugal ci suñu luwaay gaaras man man bu ma demee dama koy dugal ci samay luwaay gaaras muy fukki dërëm yooyu mooy weer ñetti téeméer xam weer ñetti téeméer kenn ku ne mën na ko. dëgg la du jafe. noonu laa ko defee ba yàlla dogal ñi ma àndal ñu pëstefu lool bi ma leen ko defalee danoo wàññi ko jaajëfal ma man. Mhm. ne lii mosuñu ko am ndax lii ñuy liggéeyal sëñ bi ci ndox mi mosuñu ko am ndax it bu fekkente da ngaa ànd ak gone it. Mhm. nga xool idée nga poussé leen ci idée boobee. Mhm. ñu fekk si leen ci. yow miy mag da war a jaajëfal gone ya ndax dama jàpp na ñun dëkk bi gannaaw fi leen fas yéene dunde fi leen fas yéene faatoo sunu néew doole bu ko dëkk bi xam. voilà kon euh, xam naa rek euh, daañu ñëwaat ci fànn googu sax muy li nga xam ne moom ngeen di jëf ci dëkk bi waaye ñëw ci beneen question boo xam ne daanaka mën nañ actualité ndax euh, bu yàggul rek ñu ngi gis benn kuñ ne ab kuñ ne ab dawalkatu sareet la am moroomam mu doon xeexal. ba ñàkk ci bakkanam ñu gis ne tamit yooyu danay faral di am yenn saa ci dëkk bi wala ay sàcc yu fi am ba ñu ciy tudd borom sareet yi yéen loolu naka ngeen koy dundee ak bu ngeen ci jotee naka ngeen ciy taxawee ndax loolee borom sareet ñoo koy def wala am na ci ñoo xam ne dañ leen rax ak yu ni mel. metti lool metti lool man nag dama jàpp ne bu sareet defee lu baax. Mhm. man mii la ko defal bu defee ndëngate it damay jàpp ne man mii maa ko def mhm. ndax man ku tudd sareet tudd ndax boo demee ba liggéey ba sëti sëñ Tuubaa yi daje. Mhm. ñu yëkkati li nga xam ne sii moom la julli gën a fonk muy kaamil ñu mhm. njukkale ko borom sar yi teg ko ci sama loxo loolee dama leen ci sant bu baax a baax. Mhm. lii nga wax nag muy góob bu ma méttee méttee méttee méttee méttee ne ñun dañoo waroon a defar waaye waruñoo yàq. waaye nag loolu nga wax lu ma gis la lu ma xam la it. ci dëkk bi bari na loo xam ne si ñun ci ñun njiit yi hmm. ñoom lay interpellé hmm. ndax bari na ñooñu kooku nga njëkkoon a wax hmm. ki faat Baye Sall amutub saret waaye nag ci saret yi lay fréquenté ah, dañ koy yenn saa dañ koy jox saret mu liggéey déedéet wala dafay fréquenté day dafay fréquenté di yéeg di dem ak a ñëw dana la ci wax benn système boo xam ne si kooku client yi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu ñoom laa koy bàyyiloo xel am na ñu nekk ci gaar yoo xam ne sii defuñu fa dara bagage boo teg buñ ko mën a rocc rocc ko yóbbu. kooku nag police yi ñu ci mënoon a jàppale. police yi ñu ci mënoon a jàppale. mais tamit yéen ñi nekk ci garage bi ñooñu bu ngeen leen xamee du ngeen leen dénoncer directement wax ko waa police. loolu. Hmm. jërëjëfati jox nga ma question ba mu solo. Hmm. na man de yàlla dogal na garage bii ma jiite. Hmm. dindi naa ko fa ba ma koy door nag. ñu bari dañ ne moon mënoo ko man leen dongab sëñ Tuubaa lu mu mënul amul bu fekkante ne dëggu na képp koo xam ne si yaa nga fa nekk amoo fa ab sareet ma xam ne ci mu dëng doo nekk ca mbaar ma kenn du la jox ab sareet ki nga xam ne si daa yorob sareet tam it di ci def na ko sut noonu bu ma ko xamee day génn moom laa def sama règlement intérieur yu garas mhm. ma nekk ci loi yi mhm. lii nga xam ne si yàlla dogal na mu nekk muy xeex bii ndax bakkan moom fu mu faatu rek xeex a fa am. bu xeex amut faatu du fa hmm. man bañ naa ko ba loola moom yàlla dimbali na ma ci muy garis bi ma jiite moom loola moom dañ na. Hmm. bi ma koy jéem it dana ma mënoo ko mën ne leen danaa ko jéem. ndax am ngeen fay sanction yoo xam ne par exemple ku fa indi coow wala lu demee ngeen te koy daan. jërëjëfati loolu moo nekk. Hmm. képp koo xam ne si xeex nga fa daal aj weer hmm. du ko bindu fay loolu maanaam boo ñëwee ci garage ba doo yab doo hmm. doo bind hmm. fay loolu àlla man six mille francs bu fekkee ne yow dan laa da nga faa dikkoon ñu jox la saret nga xam ne amub saret de dafa bari ci garage yi ñoo xam ne am ñu am ñu saret dañuy dikk ci garage bi rek ñu jox la saret boo fa amutab saret moom dama lay génne complètement nga dem seeti feneen man yàlla dogal na noonu lay doxee ci sama gaaras ba bëri na nag lu ñu leen ciy tudd ci ci ci dëkk bi euh, mu mel ni clients yi tamit am na lu ñu ciy wax ak yooyu mu mel ni tey jii yéen am na rôle bu am solo boo xam ne war ngeen ko ciy joué waaye loolu dafa mel ni faaw ngeen ànd ceeg waa police ak gendarmerie ndax loolu laaj na ngeen di dem di waxtaan ak waa police di waxtaan ak waa gendarmerie yenn saa yi ñuy def descente di ñëw ci garage bi di leen nemmeeku xam li fa nekk ndax loolu ñoom tamit ñu koy def. loolu de ay jamono de daanaa ko gis ñu ko fay def mm-hmm. waaye defatuñ ko mm-hmm. xam nag lu ko waral jamono yi bi mbas mi ñëwagul mm-hmm. daanaa gis ñu wàcc fa seet ñu jubadi ñu jàpp ci yóbbu waaye bu jàppee yóbbu it seen tuuti nga gis ñu dellu siwaat xam lu ko waral nag xam lu ko waral waaye dama jàpp ni ki nga xam ne si danga ko xool mun dëng da ko war a tegi daan ba ëllëgee du ko ñeme moromam du ko ñeme. man noonu laa jàppee affaire bi waaye bu fekkante ne ñoom bari na ñoom ñoo xam si gone yi dañ ko jàppee affaire pagaay mm-hmm. ne dañ naan la boo de boo boo demee rek da daal di ñëwaat. moo tax ñu ñeme ci li ñuy def moo tax ñu ñeme ci li ñuy mm-hmm. man nag bu ma xoolee xel nag lii nag il faut ñu jël ci matukaay ndax ndab li nga tiim di lekk ah nit bëgg cee xëpp suuf te loxaam. Mm-hmm. ba amee fayda. ndax ñun saret yii lañu am saret yi lañu am ci li ñuy dund kon nag képp ku ko bëgg a xajamal da ngay jaar ci sama kaw jàll waaye duma la ko may Baye Sangue est-ce que loolu euh, newul loo xamante nii tey jii euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi niñ leen ciy tuddee yéen tamit amul leen ci part de responsabilité pour taxawaay boo xamante ni war ngeen ko ci am di waxtaan ak borom saret yi ci seen biir euh, yenn saay sax ngeen organiser ay tàggatu ñu tàggat leen parce que tamit am na lu ñu leen joxee baaraam nee ñu bëri na ñoo xam ne ñu ci sareet yi jànguñ àgguñ fenn fii moom moo tax lu bari bëri bëri ñu koy def loolu tamit est-ce que euh, laajul yéen yi nga xam ne jiite ngeen leen ngeen leen di xool nu ngeen lëkkaloog yenn kuréel yi ñu leen di tàggat euh, ci si nga xam ne moo moo jëm seen ab liggéey. loolu lu dëgg lu wér la. Mhm. daanaka boo gisee may wax dama damaa mënewul wax ndax bu ma waxee tuuti damay aalu. dëgg la ci bari ci ñun njiit ndax bu mbooloo demee ba jiita la hmm. mbooloo moomee man nga leen teg ci yoon woo ba xam si mooy yoonu siraatul mustaqim hmm. buñ ci nangoo noppee tegu te yow nga bëgg caa jaar day jar nga wékki sa ndombal tànk bay li ñu seet neneen noonu def hmm. man dii laa gis ñun ñi nga xam ne ñoo jiite nag jàpp naa ne ñun ñoo des de ñun ñoo des ndax mbooloo mi dajee lu toll ci ñetti téeméeri nit dinañ xëy ci sama garage bii bu mbay bu mbay mii amul woon ak lu topp léegi li ne ci ay table ci sama garas bii tey table bee may joxe mi ngi ci cinq cent quatre-vingt-un tey tey waaw tey yem nañ déedéet maanaam ci table yi nombre table yi waaye nag yëpp dañ fee bokk nekkandoo mhm. fii ne actuellement sari dañuy bay am ci bëri génn nañ waaw génn dëkk bi dañuy bay mhm. waaye bu noor bi dañuy ñëw léegi nag lu ci bari ñun njiit yii ñu ñi ma wut a wax dëgg ñi jiite nit ki ni bu fekkante ne ñi ma da nga koo jiite ba pare ñu ma woo ko wax dëgg mm-hmm. jëru nga koy jiite ndax ndax boobaa mën na jàpp ne lu ma def rek kenn du ci wax dara la lool lool ma neex def loolu la mm-hmm. boroom kër mu ne mënu lu may dara sa njaboot mm-hmm. na jéem ca njabootam ba ñëpp xam ne jéem nga ci sa njaboot la ca des boo ko mënut ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ñu autorité yi nga jokkoo ak ñoom ñu saafara la man doxin wii laay dox ci sama gaaras bii te fi muy gis nii bii mbas mi lii lii lii amee mm-hmm. maa ngi jaale ñi ci wàccu liggéey muy bàyyi saal moom ak mayga boobu da mm-hmm. man yàlla dogal na mayga yi dafa mel ne dama cee bokk ndax yàlla dogal na am ñu ci loose woon sama kër mm-hmm. ñu ci loose woon sama moo tax bi mbir mi bu ma ko déggee dafa mel na man dama soge soge boo xam ne si metti na ma lool nit ki nekk cib liggéeyam nga fekk ko fa néewal ko doole faat ko loolu damaa xamul jikkoy lan la mm-hmm. te nag autorité yi nañ ci bàyyi xel gis nga gone yu ndaw yi jóg jógul jii ma gis ñu jóg mm-hmm. bu màggee ci nii ñeme ci nii wallaay asim du ma ko bëgg duma ko bëgg kon mbokk yi yéen a ngi bàyyi xel seen émission teg ko ci yoon ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ak seen site internet di assalaamy point net tey ji nag ñuy dalal euh, Baye Sangue Fall jiite euh, borom sareet yi nga xam ne ñoo nekkee ci euh, fi nga xam ne moom moo di garage Ndamaatu bi nga xam ne sareetu guy ga ak sumpu ga Kër Baye Laat fa la ñuy yebee maanaam sareet yi nga xam ne dañuy jëm ca Lansar. waaw Lansar Baye Sangue mu mel ni tey seenub liggéey am na jafe-jafe yu bëri yu ci nekk ñu ngi ci nawet gis nañ mbedd yi ni mel. seen digganteeg mairie bu tuubaa ndax li leen war ba pare yéen yéen a koy def ci taxe yoo xam ne yéen a koy versé laataa ñu ñëw ci li nga xam ne moo war mairie bi ci yéen ndax moom mu ngi sàmmanteeg moom. jërëjëfati foofu laal nga fu mat a hmm. ndax mairie Touba day man jàpp ne roob conseil waaye ci laa bokk hmm. ndax li tax ma wax la ko damay doomi dëkk bi hmm. doomi dëkk bi lépp lu laal dëkk bi yaa ci biir bii mbas mi ñëw guddee borom sareeti fas yi ma jiite. Mm-hmm. ñu ngi doon fay cent pour cent waaye depuis bi mbas mi néeg ak léegi. na ngeen di fayee ak ñaata ngeen di fay. ñetti téeméer la ñuy fay par weer. par weer kooku xam nga man xam nga lu tax man nangu ko ci sama xol bu sedd. Mm-hmm. bi sëñ Saliou nee yal na ko yàlla dolli leer. amiin taas ñu ci barkeem bi mu ne ku ko bañ fii nga ko bañ waaye boo génnee feneen def ko fa. dëgg la loolu tax man bu ma koy def dama ciy am ferte. Mm-hmm. te suñ sang bu baax ba. man damay ndongal Daaru Xudóos mm-hmm. sama sëriñ ko wax de ne sëñ Cheikh Mbacke daan wax ne boo dee joxe si addi yi te fayagoo lemp demal joxe lemp ba ba pare doo ko joxe addi yi dëgg ndax lemp bi ci la eh, réew mi doxee mm-hmm. ñu nag ñi koy delloo walla dellawuñu ko mm-hmm. ñun borom sar yii day dellawuñu ko dellawuñu ko ndax yàlla dogal na lu ci bari ñun soxla wuñu tëli mbedd suuf si ku nu ko defaraloon moo gën ci fas yi daan leen bàyyi ak mbedd tëli waaye lu ñu ci wax ci bu ba ca ngoon duñ ci gis dara duñ ci gis dara ci gis dara canal bee ma nekk ca marché bee daaw ba ko kay di bàyyi faal yi baqee ba mu àgg ñam ñaari weer kenn mënu ko mënu faa jéggi kenn mënu faa jaar man maa volontaire génne ci sama keesu gaaraas defar ko. Hmm. keroog ba ma demee ci na Diop wax ko ko. Hmm. na ko Thierno loo ma jàppale muy ñaari canal. Hmm. mu ne ma daan la defar benn bi Thierno defar benn bi ma defar benn bi. loolu it damaa jàpp ne man fu ma nekk maa fa war a nekkal Sëñ Tuubaa man lool laa jàpp. ba démb canal ya fa ya fa jotoon a fatt démb. maa ànd ki nit wàqi ko jël baa nga fay jëlee. mais loolu est-ce que yëgal ngeen ko mairie bi ñoom ñu xam ko pour ñu mën fa ñëw defar ko. léegi ci yégal ko maire bi. Hmm. man loola wax dëgg yàlla defuma ko. Hmm. ndax li tax defuma ko man maa jàpp saa bopp ab conseil ci dëkk bi waaye ñoom jàppe wu ma conseil waaye jàpp naa ne man li may def ci dëkk bi conseil defu ko ci. maa hmm. ah, jàpp ne ñoom ñoo war a gëstu xam li askan wi nekk. waaw ñaq wala lañuy am di ko defaat ci dëkk bi ñu saytu xam seen i jafe-jafe ngir mën ci taxaw. waaw nay sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xam si moom laa dëkkal fee day mm-hmm. ak Pape Fall mi jiite waar yi yoona mbedd yi suuf si. Mm-hmm. ñoom yàlla dogal na ñoom xam nañ ko ñoom ñëw nañ fa ba agsi. Mm-hmm. jaajëfal ma ba sëñ Xaadim ci boppam la ko dale ca njóobentaay bay dem ca ko kii gaar bu ndaw bii. waaw mbedd moomu. dañ ko Baye Fall ba pare man lan woo daa fii yow lañ ko dénk ci man nda ndongo su xeebu ñu xool ne ko di lii yow lañ ko dénk man ña ko dénk damaa jàpp ne amatuma seen pay ndax dëkku Sëñ Tuubaa bu la bayal ci waar wi rek kala bayloo ci waar woowu kooku mën la dimbale léegi la ca dolliku ba mbedd mi taq yàlla dogal téer yi formé seen benn daayira àllarba ji jot ñu fut seeni i bale tali bi keroog yàlla dogal na dafa fekk ma génn mm-hmm. bi ma dikkee ñu woo ma ne ma yow lan def président bi mm-hmm. léegi dama bëgg nga wut ngeen wut nga wutal ñu matériel mm-hmm. ma leen yombatu sëñ Tuubaa ma bind ñetti kayit benn bi ma jébal benn bi ma jébal ko maire yi benn bi ma jébbal ko Diop Thierno Diop mm-hmm. benn bi ma jébbal ko Sorom moom moom kër googu ci banque bi waaye bu ma jébbale woon mairie de ba suñ jonn yàlla yi tey defaloon ma ca dara. maanaam tontuwuñ leen. déedéet mm-hmm. déedéet keroog ndaw sama su fekk it dama ne ko li ma waxee bàggal ma ne ma lii nan ko teg bi ma ne ko ba baax na man dama ko fi war a indi waaye danaa ko fi indi. Mm-hmm. fii laa ko war a indi daa ko fi indi léegi bi ma ko cee waxee ceerno mën a man ñaataay doy ma ne ko yow mii def ko yaay seetloo doy fii ci kànkayr yi boppam bii la ma yebal mm-hmm. boole ma ki fi ne mu jox ma fukki bale ñaar yi bale tëy mm-hmm. jox may peel fukki peel ak ñaar mm-hmm. yooyu yëpp ma nga ak man léegi joxat ba bureet yàlla dogal bureet ma dikk fekk bureet yi manqué dafa ne moom léegi fa fekk na ko jox juróomi bureet yàlla dogal benn ba ne fa jox ma benn kon ñun ña nga cay bay Papal moom nga xam si moo jiite kii ya am na ci lu wér ndax fan yi ci ginnaaw rek gis naa boroom dara ji ju mag kanaal yi nga gis nii yi defoon mm-hmm. da koo bët doon ca branché foosam mm-hmm. maa taxaw na ko day daj mm-hmm. alerté maire yi te loolu sax sëriñ bi tere woon na ko tere na ko waaye nag borom daraja yi ñooy yàq dëkk bi. Hmm. buñ ko waxee buñ ko waxut. Hmm. lu néew doole yàq dëkk bi de borom hmm. daraja yi yàq dëkk bi de. ndax loolee tey moom man mii moom ma ko waroon a tere man mii néew doole. waaye man maa dem tere ko. dëgg la bam ne maa damaa amul këyit ma ne ko woon ma këyit woonu ma këyit wu. ma alerté mairie Pape Fall jabal fa ci topp ci moom. ak wata police. keroog ñu dagg teewoo ba. d'accord léegi ñu ñëw ci euh, jafe-jafe yi nga xam ne yéen yéen ko am seenub liggéey ndax gis nañ ne borom dawal ko sareet yi nee ñu bés bu yàlla sàkk ay jafe-jafe la ñuy am ci ci ci dëkk bi muy seen digganteeg takk der yi muy jàpp leen di jàpp euh, waaye it euh, yoon ni ni mel sànq ñu ngi koy wax ak digganteeg maire bi yeneen jafe-jafe yi ngeen xam ne moom ngeen am ci dëkk bi ak seen digganteeg clients yi lan la fi mu toll nii gis nga suñ digganteeg takk der yi moom hmm. coono bi ci amuñu ko fenn fenn ndax dama bëgg ki nga xam ne si nekkul ci yoon jàpp ko teg ci yoon ki nekk ci yoon bàyyi ko ma dem liggéey mm-hmm. ndax ñun secteur am formel la nekk mm-hmm. Touba amul géej amul usine mm-hmm. charrette yi nga gis nii li bootu seen gannaaw kenn xamul nu mu toll waaye foo jàppee yóbbu tekk yére boo dikkee fayal dem ñaata ngeen di fay. am na yoo xam ne si juróom benn téeméer lan lay wax. Hmm. juróom benn téeméer. Hmm. juróom benn téeméer boo daggee rusi six mille francs mais tamit ñoo ñuy jàpp est-ce que ñooy def tamit lu ñu leen di jàppee. déggoo li ma la wax. Hmm. man am na kilifa ci eh, interpellé ba ma leen waxee. dañ na ma opération la. ñun nag ñoo xam lu ñu seet man xaw ma ko. waaye dama jàpp ne bu buñ bëggee gis mhm. buñ duggee ci gaar si danañ xam actuellement li ne ci gaar si surtout buñ ci lëkkaloo chef de garage ci lëkkaloo chef de garage yi mhm. te ni ñu lëkkaloo chef de garage yi muy ki la nga xam ne si dalaa wan ku jubadi mhm. bu na ko diw ko woon waaw yoon sax du def loolu yoon moom boo ko joxee information ci ku jubadi moom dalay dalay nëbbu sàmm la buñ laajee sax ñu yokk sa kaaraanga ñu yokk ko. ngir kenn bañ laa bañ laa song. Mhm. gis nga lu mel noonu buñ ko defee man damay laaj appel booleem chef de garage bu nekk ci dëkk bi. Mhm. moo xam saret nga yor moo xam wata nga yor moo xam marché nga jiite. Mhm. damaa jàpp ne dëkk bi ñun ñoo ko war a aar. ci sayir si. baatin bi nañu bàyyee ko borom. dëgg la ndax gannaaw ñun ñooy jaxasoo nit ñi. ñoo xam ne ne ci garage yi. léegi nag borom sari yi chef de gare si lay wax de. Mm-hmm. ndax barki démb bi lii amee. Mm-hmm. mel na ne léegi yëngu. Mm-hmm. ndax man doy bi nga xam ne si yàlla dogal na moo ji nekk coordonnateur Taysiru Asir. bi ànd ak Pape Thiam woo na ma na ma léegi dana daje ñu xool nu ñuy def ba mbir yi tegu ci yoon. Thiam Sarr mi woo moom mi mun eh, fenn Munawir Bunyan mi te nekk conseil ci mairie ba mm-hmm. ñu xool nu nga xam ne si ñoom la ñu lëkkalool mm-hmm. toog di waxtaan chef de yëpp kenn ku ne teg sa mbooloo ci yoon mm-hmm. ka nga xam ne si daal daa dina gutta tegu ci yoon nga jébbal ko yoon buñ ko defee lépp ay jag lépp tegu ci yoon rek waaw lépp tegu ci yoon ndax lii moom ñu di ko tudd di nu tudd man lu ma metti la lu ma diis la it barke Seexul Xadim lu ma metti lu ma diis la lu ma metti lu ma diis la muy euh, kàddu yi euh, bàyyi Sang Fall mi nga xam ne moom la ñu daal tey ci seen émission teg ko ci yoon ci seen euh, chaîne Assalaamy TV Baye Sang mel ni ñu abordé ponk bu mujj bi seenu taxawaay ci dëkk bi lan la war a doon muy yaa ngi doon junj ci ndorteel gi muy taxawaay boo xam ne war ngeen ko am yenn charrette yi nit ñeneen ñi nga xam ne yàlla may na leen ay xéewal ñuy participer ci dëkk bi borom sareet yi nga xam ne la ñuy for ak astuut ñoom it di ko delluwaat ci dëkk bi ngeen taxawal daayira yooyu nga xam ne moom ngeen doon wax ak yeneen ak yeneen ndax am na yeneen naal yoo xam ne taxaw ngeen ko ngir di di dugal seen loxo ci dëkk bi ni muy doxee waaye tamit gën a xeex euh, ñàkk kaaraange gi am ci garage sareet yi ak ñàkk yar geeg yooyu. loolu moom dëgg yàlla man maa ngi ciy dox maa ngi ciy wax hmm. waaye nag mel na ne des na ndax li des. benn garage bu ci doxee te yeneen ñi doxu ci mel ne dara dara taxawul. Mm-hmm. te gi nga dikk na damay bokk si ci yow nga tegal ko say luwaay garage. Mm-hmm. mu nangu ko dama jàpp ne bu ko wàccee war nga ko teg ci yoon. waaw war nga koo teg ci yoon lu ñu bari na defuñu ko. Mm-hmm. lu wax ca kaw. wax ca kaw deful dara dangay wax boole jëf. wax moom lu mu taaru taaru te àndut ak jëf ngelaw luy dem rek la. ngelaw rek luy dem la. ñun nag dëkk bii damaa jàpp ne ñun saret yi. Hmm. puisque transport Touba saret yee fi njëkk. Hmm. la ko fi jëlee it la fi jële voiture moo ko fi jëlee. Hmm. ñu dem ba am leneen loo xam ne si xam nga voiture la ko fi jëlee taxi yi. waaye du buuroo ko fi jëlee. nit ñee dem ba xam ne buñ fi duggee taxi voiture bee gën a taxi bee gën a yomb moo gën a gaaw ñu jël ko kon jàpp nga ne mën nañ dem ba soppi sareet yi mën naa am mën naa am waaye yoon wan koy soppee jaaragun ca jaaragun ca yow ban yoon nga jàpp ne buñ ci jaaroon mën ko soppi gis nga treize sigle yi ñuy wax nii mhm. treize sigle yi ñuy wax nii ba tey benn société ko fi indi rek mhm. lëkkaloo ko ak ñeneen mhm. man nag dafa am loo xam ne si toujours sang Fall da koy bañ. sang Fall koy bañ de man du ma nangu ke nga xam ne si daa jógee Ndakaaru lijjanti projet am bëgg a jël li ci sa poos su ma ko xamee daay lank de. daay lank gis nga très jigéen yi buñ koy ndee nit ñi duñ ci yëg xam nga lu man mhm. sër wi mburu ndax xam nga Tuubaa moom. njëkkoon na fi am. mooy xeetu oto yooyu am ñetti pneu rek. waaw ñetti pneu. Mhm. xam nga njëkkoon na fi am. Mhm. daana daw yoonu Daaru Musi. waaw. léegi boo ci yéegee day nodd naw fas. maanaam oto bee dëgërul dëgër goo xam ne mën na jël yenn poids yi. mënu ko mënu mhm. ko te boo xoolee Touba ni mu demee amuñu tëli yu doy yoo xam si comme secteur bi ma nekk tey. boo ci bëggoon a dugal moo tam ñetti ru doo dem. parce que boo xasee jéggi corniche bi. doo dem li suuf la doo dem lépp suuf la doo kon nag loola mënagut a ne ñun nag li ñuy bëgg ndax ay góor lan ay jullit lan ku nu dimbale te yàlla tax ku nu dimbale te yàlla tax nag damay bañ ku nu ko ñu ci bari nag mun dikkee dañ naan dañoo bëgg dimbale borom saar yi waaye dañoo bëgg a dimbale ko borom saar yi mm-hmm. loola nag man lu ma ca xam daa koy bañ lii nga xam ne si mooy réglementé jari yii mhm. mën na ne mën na ne mhm. ci ni muy amee duñ tënku fenn fu du ci maire bi la ñuy tënku mhm. ndax maire bi am nañ ci nekk am ami compétent dafa res borom sarit ay carte conseil paa mu jóge Njaaréem paa mu Ndakaaru noonu ko liggéey ci maire bii képp koo xam si am na âge dawal sareet mhm. ñu jox la ko ku ko amul doo ko am sareet bi it mairie bi commencé woon na di jox ay tableau mhm. matriculation euh, saret yi mhm. waaye na ko defee moo baaxul bu fekkente ne yow yàlla dogal na da ngay ñëw ci secteur da ngay laaj ña nekk ci secteur ba na man yàlla dogal na sama ni ma identifié samay numéro bokkut ak ne keneen identifié numéro am gaaras benn bu nee dañ ko war na wutal comme ni Diourbel eh, defe dee ell keneen defe ko ne keneen defe ko mhm. buñ ko defoon ba saret yëpp am nga xam ne saret bu ko amul mhm. bu tasee police mu ne mette ko en fourrière lu bari dana saafaru de te boobaa sax client bu fàtte dara ci saret bu wàccee bu xoolee numéro ba dana xam ne numéro sangam laa wax fàtte woon jërëjëf mhm. foofu it dama am lu ma ci fàtte woon foofu dafa am lu ma ci fàttali hmm. man mii sang Fall yàlla dogal na bi ma jiitee garage beeg léegi waaw bépp ku fàtte bagage ci sareet hmm. boo ñëwee ci man danga ci jot ñi ko ñi dëkk ci koñ boobu xam nañ ko hmm. ak lu man di doon bari na ci ñu jub ñoo xam ne si wallaay asib xaalis sax dañ ko fi indi xaalis sax dañ ko fi indi seen borom da ciy jot d'accord xam naa xam naa bala euh, bala ñoo tëj émission bi rek mu nekk euh, laaj bu gàtt rek seen digganteeg euh, sareetkat sareet dawalkatu sareetu mbaam yi mel ni booba léegi sareetu fas yi sareetu fas yi ngay wax sareetu mbaam yi tamit ñu ngi ci dëkk bi seen digganteeg ñoom ndax ratax na. xam nga amuñu jafe-jafe waaye nag lu ci ëpp ci ñàkk yar gi. ci sareetu mbaam yi la ne. ku dox dox ci dëkk bi xam ko. ndax ci goney ndaw yi ci la ne. xam nga mag mi xëyee këram. di wuti dépasse. bu sañoon du am la ko gàllankoor responsable. gone gu ndaw gi nga xam nag yaayam a teggib natt. Mhm. jëndal ko sareet kum taseel mën na laa wax lu dul noonu maa ngi nuyu benn commandant bu fi nekkoon. Mhm. ci jamono yi sëñ Sidi Maxtaar bi ma demee fekke ko ngaan na wax ko say ñaxtu. Mhm. ci ñun ñuy sonal mu ne ma yaar yii nii la ma ko sëñ bi wax de. yaar yi maa ko santaane yaar yii. xale yu mag yi ak gore yu ndaw yi sëñ Cheikh Thioro bëgg maa doog mu fàttali ko na ko bàyyi ko waxal boppam ban bëggee jóg sëñ Cheikh Thioro daan ne yéen mag yi ngeen wut ay katajo mën a onhu kon xam nga ñett yooyu sëñ benn ko digal dëgg la te ñett yooyu suñ kaaraga la na bi ma dikkee dama bind lettre tas ko jëlub tax booba mën doy moom laa yónni mu wër dëkk bi garis benn bu ne mu taxaw ci jébbal ko bu leetaram li sëñ bi wax mm-hmm. commandant Magnang jàpp jamono yooyu mi ngi ma ci doon jàppale ci gone yi mm-hmm. ndax gone yi lu fi yomba dindi la de ci kaw ñu bëgg koo dindi gis nga gone gi yorob sareet nga xam ne mëtutu yorob sareet mm-hmm. nga jàpp ko kaka jox sareet baa nga ca garis ba nga jàpp sareet ba teg ko nee bu dikkee nga fay loo ko vingt-cinq ba léegi du ko jox ba léegi du ko jox. dëgg la waaw nga bàyyi mag ñi nga xam ne si duñu wutub dépasse ñu wuti dépasse wane ndaw gi nga xam ne daa toll ci jàngi mu jàngi. dem jàngi dëgg la. mu jàngi. laa ko gisee gannaaw yàlla dogal na man bii nga xam ne si man. Hmm. maa ngi sa nga sama doom nga nee. Hmm. maa ngi koy jàngaloo ji de fii nit saab sareet bi ma koy yor it dama koy jox magum jëm mu mat a yor jabar borom kër laa koy jox ma xam li ma koy jox lan la. dëgg la jërëjëf Baye Sang Fall xam naa dañ lay bàyyi rek sa kàddu yu yooyu tëjee émission bi. maa ngi leen di jaajëfal di leen sant te di leen ñaanal sun borom bi nga xaye si moo amee kattan. yàlla leen kattan. allahumma amiin ci barke Seexul Xadiim. amiin ndax média li man mhm. lu bari mënu ko. dëgg la média moo mën a defar moo mën a yàq. Mhm. yéen yàlla dogal na nii média buy defar la. ndax nga gis ay jafe-jafe ci dëkk bi. Mhm. nga woo ko xam si yaakaar nga ne dana xam loola ci dëye dëkk bi mm-hmm. ah mu wax ca mm-hmm. loola dama jàpp na luy defar la man nag da yàlla dogal na su may commencé wax damay aalu mm, yàlla dogal na ku ma ci laal mm-hmm. maa ngi la koy jéggul ci sëñ Tuubaa tax am defar nga ci jublu waaw defar dong laa ci jublu. tey ñaanal sëriñ si eh, sëñ Muntaxa Mbàkke bu yàgg fi lool. ba lim naa naal di ko lëggéeyal maamam ji. màgg ba mu naalaat yeneen. ci barke Seexul Xadiim. amiin amin jërëjëf euh, bàyyi Sang Fall. jërëjëf it euh, mbokk yi ñu doon euh, bàyyi xel ci seen émission teg ko ci yoon dañoo bëgg lépp rek tege ci yoon kenn bañ am jenn benn jafe-jafe moom moo tax ñuy waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne day am ci dëkk bi ngir kilifa yi mën koy bàyyi xel di ci indi saafara moo taxoon tey jii ñu doon waxtaanee ci lépp loo xam ne jëm na ci dawalkatu sareetu fas yi. moo taxoon ñu dalal ci euh, Baye Sang Fall mi nga xam ne moo jiite euh, borom sareet yi nga xam ne ñoo nekkee ci garage bi nekkee ci euh, Ndaamaatu mi nga xam ne ñooy yabe guy ga ak Kër laat ak fi nga xam ne moom moo di sump ga ñoom ñoo fa nekk. santaat leen bu baax a baax yéen doon bàyyi xel di sant suñuy cadreur di Fallou Fall ak Daouda Gueye sant leen nit yéen ñi doon bàyyi xel dina wax ne wéy leen ngeen abonné ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ngir am seen émission teg ko ci yoon dig leen daje incha allah yeneen ay bés jaa ngeen jëf. من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنة